أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فألم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به وحذر مما يخالفه وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل وهذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقد من النواقد التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشر نواقد ذكرها أهل العلم رحمهم الله جميعا ونذكرها فيما يلي عن سبيل الإعجاز لنحذرها ونحذر منها غيرنا رجاء السلامة والعافية منها mbokk ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali yow sama mbokk jullit yëgal ne yàlla tabaraka wa taala dafa farataal dafa waral ci jaam ñi ñoom ñépp jaam yépp ñu dugg ci lislaam ab jullit amul droit ne man ci lislaam laa nekk waaye ay santaaneem duma ko jëfee borom bi tabaraka wa taala dafa woo ñi gëm yàlla ci baatu ngëm mu ne yaa ayuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafa ee yéen ñi gëm yàlla borom bi tabaraka wa taala nee na dugg leen ci diine ji lépp lislaam amul ngarale tey nga def lii nekk julit suba nga def la nekk leneen wala nga nekk julit bëgg a roy ñeneen ñu dul julit loolu mënul nekk da ngay nekk jullit mu leer ñu xam ne ab jullit nga wala nga nekk ab yéeféer mu leer ñu xam ne am yéeféer nga yàlla mu ne imma shakiran wa imma kafura benn nga gëm yàlla rek wala nga nekk yéeféer waaye duma jullit duma yéeféer jullit laa yéeféer laa mënul nekk naka ngay nekk jullit bëgg a roy ñu dul jullit wala bëgg a roy ku dul jullit xoolal tey li xew ci jamono xale bu góor boo gis tubéy yaa nga ca óom ba da ngay gis kuy dox di yëkkati tubéy dox di yëkkati tubéy dox di yëkkati tubéy loolu loolu tubéy yooyu ñuy takk ci pooj yi loolu kan lañ ciy roy est ce que Muhammad la est ce que Aboubacar Sadiq noonu la doon solo tubéy Imam Ali noonu la doon solo tubéy Ousmane Ibnu Affan Omar Ibnu Khattab Bilal Ibnu Rabah Cheikh Ahmad Bamba Alhaji Malik ñooñu noonu lañ doon solo kon ku ñuy roy ci loolu ay yéefir bu ñuy jullit bu ñuy yéefir kenn xamul ñi ay lan lañ ab jullit day dugg ci lislaam ba mu jeex takk ndax woote la ndigal la bu yàlla wax udxulu fi silmi kaafa diina ji dugg leen ci lépp borom bi yemul ci loolu waaye dafa xuppe mu ñaax ne nañu ngëpp ci lislaam nañ ko ngoy ñëw na ci hadis yonente bi ne addu alayha bin nawajis diina ji na ngeen ko matt ak seeni dëgëj dëgëj dëgëj fu mu nekk mooy bëñ bi mujj ci bëñ yi lañ la ne nga jël sa diine dugal ko foofu matt ko ku ñu ne mattal sa diine ci say dëgëj nag kenn waxu la nga téye diine ji nu mu la neexee su la neexee tey nga julli ginnaaw suba doo julli su la neexee tey nga muuru suba doo muuru su la neexee tey nga nekk jullit ginnaaw suba nga nekk yéeféer mbokk yi loolu du misaalub jullit borom bi daf ñu tere mooy tandikuloo nañu lépp luy tax ñu wuuteeg moom borom bi tabaraka wa taala waaye yàlla sax pour ñu bañ a wuuteeg moom pour ñu bañ a mel yeneen melokaan yu lislaam bëggul wala ñuy jëf ay jëf yu lislaam bëggul mu daal di yónni ab yonent bu tudd muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw di woote pour ñu mel pour ñu mel pour ñu dund li yàlla bëgg loolu moo tax muhammad ñëw sallallahu alayhi wa sallam moom muhammad bi mu ñëwee yàlla daan ñuy xamal ne képp ku topp muhammad jub na képp ku ko du mooyu réer nga moo tax nga gis ci dund doomu aadama yi ñu toppandoo muhammad ñëpp dañuy jub waaye ñi sànku bañ a topp muhammad yëpp ñu dëng la ñuy doon lu ko waral parce que yàlla moo joxoñ ci quraan ne wa in tuti uhu tahtadu ku topp muhammad jub ku topp muhammad rek jub yàlla yemul ci aaya boobu waaye dafa waat daa di giñ daan ne ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim giñ naa ci sama màggaay man yàlla yow muhammad da ngay jubalaate ci yoon wu jub bi ki yàlla giñ ci dundam ne bu ngeen ko toppee jub kon kooku lan moo tax duñ ko topp parce que bëgguñoo jub di roy ay yahud di roy ay nasaraan di roy ñoo xam ne adduna bi ñoo fi mujj ñoo xam ne seeni jikko seeni melokaan dara baaxu ci suñ la nee royal muhammad nga bañ buñ la nee royal diw ak diw nga nangu kon yow war nañoo xoolaat sa ngëm yàlla gi ngay woote ndax dëgg la borom bi ne ku topp muhammad jub wa man aarada anhu faqad dalla képp ku dumooyu muhammad wan ko ginnaaw kooku ku sànku la ku réer la wa xasara fi ayatin kathirat min asbaabi ridda yàlla wax ñu ci alquran ci ay aaya yu baree bari ay mbir yi nga xam ne ku ko def rek génn ci lislaam te ku génn ci lislaam kooku jeex na waxuma la julleem waxuma la koor waxuma la aj màkka lépp lu mu yëngatu kenn dootu ko jël parce que yéeféer la ni ngeen xamee am na lu julli di def jàpp ba pare war a dem jàkk am lu mu def ci yaramam am lu génn ci moom njàppam yàqu jullit nu muy wooree am lu mu def kooram yàqu jullit ni muy aje am lu muy def ajam yàqu naka noonu la jullit di nekk jullit am loo def génn nga ci diini ji yow yaa ci tudde sa bopp yaa ci des rek waaye génn nga ci bu yàgg a yàgg mbir yooyu boroom xam-xam yi wax nañ ci leeral nañ ci ci bal sax boroom xam-xam yi yal na leen yàlla fay mooy tandikuloo nañ ñu ko ba wax ñu fukki mbir la ku ko def génn nga ci lislaam fukki mbir juróom yi laay lim yeneen juróom bi ba beneen jamono bu ñu yàlla boole waatee ci place bi juróom yi may lim tey képp ku ci def benn génn nga ci lislaam lu dul nga tuub dellu siwaat ku def benn génn nga ci ku def juróom yépp nag say mbir moom kenn dootu ci waxati ndax ab yéefir bu ñuul kukku nga mbokk yi boroom xam-xam yi mooy tandikuloo nañu yooyu waaye fàttali ñu ko ngir ñun ñu mun koo xam waaye buñ demee ñu fàttali ko suñuy ñoñ ndax ñu bañ a dugg ci loolu tey bu la benn waaye ne woon man de damaa jàpp ba pare bi may waaj a génn ci kër gi dem wanag daal di may dab ma jël satala dugg ci wanag bi tuur ndox loo koy wax mu ne ndax mën naa julli loo koy tont mooy sa njàpp yàqu na wala jàppiwaat nga koy wax benn waay bu la ne woon man de dama woor ba ngoon rek ma dem kër ga rek ñu yekk añ rek ñu ne ma kaay añ rek ma dem añ loo koy wax sa koor yàqu na su la benn waay ne man dama armal aj dem séeg sama soxna loo koy wax sa koor yàq sa aj yàqu na naka noonu mbani mbokk yi yii may bëgg a wax ku ci def benn sa diina yàqu na ku def juróom yépp nag ak ab yéefir nga bokk na ci bi ci njëkk ci yooyu nga xam ne day yàq lislaam mooy ashirk billahi mooy bokkaale yàlla képp ku bokkaale yàlla yow génn nga ci lislaam sa lislaam yàqu na pour nga nekkaat julit foog nga tuub delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala nga dégg nekk ab julit borom bi tabaraka wa taala moo wax ci alquran inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa yaqulu jalla wa ala innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidhalimina min ansar borom bi nee na képp ku ma bokkaale man yàlla nga dendale ma ak kenn wala len nga bokkaale ma ak keneen wala leneen borom bi nee na bàkkaar bi nga def kenn mun la ko baal kenn du la ko baal te man yàlla dinaa baale leneen lu dul bokkaal bàkkaar boobu nit mën na rey nit yàlla baal ko dugal ko aljanna nit mën na sàcc yàlla baal ko dugal ko aljanna nit mën na njaaloo yàlla dugal ko aljanna nit mën na fen yàlla dugal ko aljanna waaye ku bokkaale yàlla du la baal jamais kon moo tax ñu war a moytandiku ñu xam ci sunuy wax sunuy jëf ana lan mooy bokkaale ñu xam ko ñu sori ko balaa ñu koy def sunu diine di yàqu wax naa léegi ni jàpp di toje ni aj di yàqoo ni koor di yàqoo noonu la lislaam di yàqoo te lislaam bu yàqu amul réparé lu dul tuub nekkaat jullit soo tuubul nekkaat jullit rek ay yëfir nga borom bi wax na ci alquran ne képp ku ma bokkaale effacé naa sa tur fomp naa sa tur ci niti aljanna yi yow safara nga jëm rek innahu man yushrik billah mu ne faqad harama allahu alal janna kooku yàlla araamal na ci moom aljanna yàlla moo wax baat bi harama allahu alal janna xoolal muhammad ni mu toll yàlla daf ko joxoñ ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluka yow sax soo bokkaalee say jëf yàqu na yow muhammad kon keneen waxi noppi su yàlla ne muhammad su ma bokkaalee ay mbiram yàqu kon mbokk yi ñun kan moo ñu war a xalaat bokk na ci bokkaale ñaan ku dee dem ba ci bàmmeel fekk waaju dee nga naan ko may ma may ma nangam ku def loolu génn nga ci lislaam ku dee kenn du ko ñaan mais dañ koy ñaanal ku dee amatul lu mu maye ku dee su munoon dara bu këram di tas mu jóg réparé ko borom bi nee na wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la wax man laa yastajibu lahu ila yawmi alqiyama ki gën a réer mooy kii woo waa ji nga xam ne du ko wuyu ku dee ndax boo ko wooyee dina la wuyu abadan kon ku dee kenn du ko ñaan waaye dañ koy ñaanal wal istigaasatu bihim ku dee kenn du xettaliku ci moom ci kuy dund la ñuy xettaliku waaye kii dund sax na fekk mu jege la te liñ koy xettaliku mu mën ci dara amaa ku dee joxe misaal rek duggal oto oto bi rëngi-rëngi kan lañ war a woo yàlla mais nit ñi duñu woo yàlla yoral kaas kaas bi rëcc daal di daanu ci dër bi ku ñuy woo du ñu woo yàlla demal ci hôpitaux yi demal ci kër yi nga fekk ñi feebar du ñu woo yàlla keneen la ñuy woo yàlla nee na képp ku def loolu sa diine yàqu na ñaareel bi ba tey bokk na ci bokkaale mooy rendi képp ku rendi te di nga rendi yàlla taxul yow génn nga ci lislaam moo tax sangu ci ay xàmb rendil xàmb rendil ay tuur rendil ay nangam yeewu suba rek benn waay ne la rendil xar mu ñuul sangoo benn waay ne la rendil xar mu weex tàll soo koy rendi rek di génn ci lislaam yonent bi nee na laana allahu man zabaha li gayrillah képp ku rey te li nga rey reyaloo ko yàlla génn nga ci lislaam tabaski bu nit rendee day am tiyaaba wala day am bakkaar day am tiyaaba parce que yàlla moo ko sant ngénte soo rendee da ngay am tiyaaba wala da ngay am bakkaar da ngay am tiyaaba parce que yàlla moo la ko sant soo amee gan nga rendil ko da ngay am tiyaaba parce que yàlla moo la ko sant gis ngeen waaye nga tëdd guddi gént dara dal la nga jëm ci benn waaye mu ne la demal nga wut xar mu weex rey sooy rey di am bakkaar parce que mbirum njabar la mbiru seytaane la du mbiru diini ñaareel ci liy génn nit ci lislaam mooy man jaala baynahu wa bayna allahi wasaait képp ku def sa digganteeg yàlla intermédiaire yow génn nga ci lislaam nga def sa digganteeg yàlla doomu aadama nga koy ñaan moom doomu aadama bi ngay yaakaar ci moom ne mën na laa ramm ngay wakkiirlu ci moom borom xam-xam yi nee na faqad kafara ijmaan kooku weddina yàlla complètement ñépp a ko wax nag waxuñu sax ñoom imam malik moo wax li Shafi wax li Ahmad wax li Abu Hanif ñoom ñëpp dañoo ànd ne ku def loolu génn nga ci lislaam lu tax yàlla sa diggante ak kenn warul nekk ci diggante ak moom yàlla sa digganteem diggante sa diggante ak yàlla kenn waru cee dox waaw waaw yow yaa yàlla direct waaye damay jàpp ci diw diw jàpp ci diw diw jàpp ci diw tee nga fi bàyyi diw jàpp ci yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum muminin borom bi nee na bu dee jullit ngeen gëm ngeen yàlla man yàlla naa leen doy man kese waaye keneen warulaa doy yàlla rek kon borom bi nee na qul udu alladina zaamtum min duni illahi la yamlikuuna mithqala zarratin fi lsamawati wala fi l ard wa ma lahum fihima min shirk wa ma lahu minhim min zahir wala tanfa'u shafaa'atu indahu illa liman adina lahu borom bi nee na xoolal ñi nga xam ne dañ naan gëm nañ yàlla ñuy dem ci ñi nga xam ne addina bi amuñ fi lu toll ne pépp suuf moomuñ fi dara am na aaya bu yàlla naan woo leen ñi ngeen yaakaar ne mën nañu dara te duñu yàlla nee na xool leen ñooñu weñ weñ yi di naaw bu këfee ci seen góom dara mënuñu koo nangu delloo si lan la teg ci aaya bi fa da'afa taalibu wal matlub kii yambare kenn gënta yambare ki topp ak ki ñuy topp ñoom ñaar xaw ma ko gën a yambare koo xam ne weñ bi naaw bu këfee ci góomam dara munul jàpp weñ bi delloo si li weñ bi këf kooku nga bugg koo topp taale nee na ki nga topp yambare yaa ngi moom xaw ma ko gën a yambare fa da'ufa taalibu wal matlub lu mu teg ci aaya ba wa ma qadarullah haqa qadri yàlla ni mu màggee gaa yi màggaluñ ko tegaluñ ko palaasam allahu akbar yàlla nee na ni ma màggee nit ñi teguñu ma sama place wa ma qadarullah haqa qadri dayo bi yàlla am yàlla ni màggee yàlla ni mu rëye ni mu selle yàlla nee na teguñu ma sama place kon kan lañ ko fay teg kañ waajooju ñuy topp yàlla ne amul dara ci kaw suuf ci keppaaru asamaan wa ma lahum fihima min shirk te yàlla nee na amuma ku may kuñ may dendaleel man yàlla te ëllëg doomu aadama yi duñu am kenn ku leen dimbali bu fekkee bokkaale nañ man yàlla borom bi wax na ci beneen aaya ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ngalawaay ولا تدع bul woo bul jaamu bul ñaan min duni llahi ku dul yàlla maa laa yanfa'uka koo xam ne du la jëriñ wala yadurruka du la lor ngalawaay bul woo bul jaamu waajoo xam ne du yàlla du la jëriñ du la lor bul ko def mu ne wa in faalta fa in faalta boo ko defee fa innaka min azalimin yow day bokk nga ci tooñkat yi gis nga saa yoo ko defee nga bàyyi yàlla nga bàyyi sa boroom nga jublu keneen nga koy woo di ko ñaan di ko jaamu borom bi nee na yow ci tooñkat yi nga bokk ñëw na ci beneen aaya borom bi nee na wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illa hu wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadlih yusibu bihi man yashaau min ibaadih wa huwa algafuru rahim borom bi nee na bu la yàlla tegee nattu amul kenn ku koy dindi ku dul moom allahu akbar ku yàlla teg nattu yàlla teg la naqar seebar ay jàngaro ay jafe-jafe yàlla mu ne kenn mënu koo dindi ku dul man amul ku ko mën a dindi waaye bu la yàlla tegee lor wala bànneex amul kenn ku mën a nangu bànneex bi mu ne moom yàlla fala raada li fadlihi ay xéewalam su ma ko jagleel nit kenn mënu koo dindi am na événement yuy passé ci jamono bi ci dëkk bi su ci nit ñi doon xool di ci jàng wallaay dañuy xam ne yàlla mooy yàlla jàpp naa élection 2000 ñu bari jàppoon nañu Abdoulaye Wade du fi toog ñu bari waxoon nañu ay wax waaye yàlla jël ko ne ko fi weng teg ko fi kenn mënu ci tus ku la fi teg yàlla am na ñu bëri ñu waxoon nangam ak nangam waaye yàlla jël ko teg ko fi kon yàlla mooy def mooy dindi gis nga bis bu ko fi yàlla ne day dindi day xëy na ko teg teggi teg fee kenn mënu ci dara bu ñëpp àndoon allahu akbar abdullah ibnu abbas keroog bi ko jàngal yonent bi di jàngal hadisu iman bi ne ko waalam anna al umma xamal xeet wépp bu ñu àndoon pour bëgg laa dimbali ci benn biir mu yàlla waxul di nga ko am wallaay doo ko am waaye bu la yàlla naroon teggi ci mbir moo xam ne ñëpp dañ la ciy jàppale pour nga am ko yàlla ne ko yonent bi ne na ko doo ko am te xamal yow abdullah ibnu abbas xamal ne kayit gi yàlla doon bind kayit ga fendi na xamal ne big bi yàlla doon bindee yàlla teggi na ko dootu ko ci tegaat gis nga ngëm yàlla lool la da ngay xam ne lii nga am yàlla moo la ko jox waaye li nga ñàkk soo demoon ba àllaaxira it doo ko am waaw loolu mooy wax ji li la yàlla jox moo la ko jox li nga amul yàlla joxu la ko wala bu la ko neree jox jotagul demal nga toog ba mu jot mais damay forcer damay forcer damay xërëmu damay tuuru ji damay fu mu lay dugal mooy nga am meru yàlla ëllëg soo dee yàlla lakk la duubu la safara mbokk yi ñetteel bi ci li génn nit ci lislaam mooy man lam yukaffir al mushrikin aw shakka fi kufrihim wa saxaha mazhabahum kafara qaala taala qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده borom bi nee na ñetteel luy génn nit ci lislaam képp ku weddiwul bokkaalekat yi wala ngay sikki sàkka ci bokkaalekat yi ne ñoom ay jullit lañ wala nga wéral li ñu nekk mu ne yow génn nga ci lislaam képp ku gis ab yéeféer ab bokkaalekat ngay sikki sàkka ci li mu nekk baax na wala nga naan noo nangam seeka soo gisee mu def yenn saa yi nga dégg ku def def joo xam ne kii safara la jëm kii yéeféer la nga dégg nit ñi naan non c'est que da ngeen war a yaatu dënn parce que lislaam bi dafa yaatu parce que xam-xam bi dafa bëri parce que diw diw a ko jur diw diw mooy maamam su ko neexee mu def dara ma ni kooku yéeféer la jarul ragal yéeféer la ab jullit yàlla li mu wax misaal yàlla nee na ku takk lu ëpp ñeenti jabar génn nga ci lislaam benn waaye ñëw am juróom ngay sikki sàkka naan moo ko ñemeeg moo ko sañ ma ni kooku yéeféer la yàlla ne yonent yàlla muhammad mooy ku mujj yow nga gëm ne am na keneen ku ñëw ginnaaw muhammad yaa ngi moom it ay yéeféer ngeen loolu jarul na ba alxuraan moo ko wax mi ngi fii mbir yi dafa bari mun nañ cee lim yu dul jeex mbokk yi yàlla jox nañu misaal ci alquran mu ne laqad kaana lakum dëgg-dëgg am ngeen misaal ci ibrahim ibrahima keroog ba mu ne ay ñoñom weddi naa leen bàyyi naa leen lu dul ngeen jaamu yàlla moom rek su ngeen gëmee yàlla rek moom rek ngeen nekk ay julit ànd ak man su ngeen weddee yàlla ma bàyyi leen aduna ak alaxira loolu misaal la bu ñu yàlla jox ñu roy ibrahim اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أيها الأحباب عباد الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله يونتي على محمد وحنا ني كيب كو گم ne yalla moy yalla nga weddi lépp lu ñu war a jaamu te du yàlla yonent bi nee na képp ku def lii sa sa alal araam na ñu jël ko sa deret araam na ñu tuur ko waaye sa fay ca yàlla tabaraka wa taala la aju ñeenteel bi ci mbir yi nga xam ne ku ko def génn ci lislaam man itaqada anna hadiyu anna hadiyu gayru nabiyi sallallahu alayhi wa sallam akmala min hadiyihi wa anna hukmu gayrihi ahsan min hukmihi كالذين يفضلون حكم التواغيت على حكمه فهو كافر képp koo xam ne dangaa gëm ne muhammad salallahu alayhi wa sallam li mu indi am na lu indi ku ko gën a lu ko gën a baax am na lu indi lu gën a jub lu muhammad indi képp ku gëm loolu wala nga gëm ne atte yi nekk fii ci sunu réew yeeg yenn ci addina bi baax na ku gëm loolu rek yéeféer nga ah allahu akbar xool leen tey ci sunu jamono ñaata nit yoo xam ne lu ñu indi la ñuy wax seeni ndongo seeni taalibe dafa wuuteeg li yonent yàlla muhammad indi ñaata te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu indi ku jàpp ne am na ku gën a indi lu baax lool rek yonent ñeneen yéeféer la léegi nag fu ñu jëm tey boo doon wàññi nit ñi sénégalais yi bu doon 10 millions lañ 9 millions yépp topp ñu muhammad ñii seeni maam lañ topp ñun suñu aada maam kat lii la ñun kat suñu kër lii lañ xam ñun kat suñu aada lii la dañuy diri cin ñun kat suñu dëkk kuy tukki càmmoñ ngay nuyoo ñun kat bu ñu xëyee suba dañuy xë laa ilaha illallah waaw li muhammad indi nag muhammad nee na kuy tukki nangam ngay wax nangam ngay def ku xëy suba sooy génn sa kër nangam ngay wax nangam ngay def léegi nag nga ni man du ma def loolu parce que ñun suñu baay jàngaluñu loolu ñun suñu dëkk bu nit juddoo bala ñu koy wat mu ne bàyyi wat ma allahu akbar yonent bi ne nit ki ci bisu tudd ba lañ ko war a wat léegi ban lañ war a def ki def la la nag léegi ñu ne ab jullit la ah mbokk yi nañ seetaat suñu bopp mbiri du ay wax mbiri ay jëf la ay nit ñëw nañ ci lislaam daan ne yàlla ñun ay jullit lañ qaalatil arabu amanna arab yi nee na ñun ay jullit lañ yàlla ne leen lam tuuminu qul lam tuuminu gëmu leen du dëgg bu fekkee ñooñu la yàlla weddi ma sama ak ñun nañu xoolaat li ñuy def nañu xoolaat suñuy wax suñuy jëf fan la toll ak li muhammad daan def gis nga saxaaba yi dañoo bëggoon yonent bi lu mu def ñu def ko lu yonent bi def ñu def ko abdullah ibnu omar ñëw na ci kaaba gi ñu ne ko fii la yonent bi de mus naa wéeru ci kaaba gi mu ne fan la ñu ne xamuñu ko mu simmi mbubb mi sànni commencé di wéeru di teg yaram bi di dem ba wër kaaba gi ba mu jeex ñu ne ko waaw lu tax mu ne damaa bëgg sama ginnaaw laal fu mu ginnaaw yonent yàlla muhammad laaloon imaam ali may nañ ko ndox mu tàng mu sedd mu naan muuñ naan muuñ naan muuñ ñetti yoon ñu ne ko lii nag mu ne yonent bi nii la doon naanee ñooñu noonu lañ meloon lu yonent bi daan def la ñuy def ñun bu ñu la nee Michael Jackson lii la doon def loolu ngay def ñu ne la Muhammad lii la doon def nga ni non xoolal tey ku cëkkal tubéyam nit ñi ne waaw lii lan la soo cëkkale sa tubéy ñu ne lii la nga ni non Michael nii la doon solo ñu ne jaajëf waay mais booy bi ngand la ko waa Muhammad nag suñu la nee ah Muhammad de nii la doon ñu ne waaye yow seen kër daa taa gis nga di la saboté te bu ñu nee Michael la ñu ne non dafa nekk à la mode booy bi dafa branché wu no kii kii pënch la waaw na nekk pënch ba yàlla jàpp ko dina ko pënch pënch yu metti mbokk yi juróomeel ci li génne nit ci lislaam mooy képp koo xam ne gëm nga ne Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu indi neexu la ñu ne Muhammad nee na góor ak jigéen duñ joxante loxo nga ne non c'est pas possible man non man mënu ma ko bàyyi. ah gis nga ñu ne la góor du bënn noppam nga dem jàpp sa ñetti nopp yëpp bënn ñu ne la góor du watoo nii nga dem watoo noonu wat def ay zigzag foofu rek laa ko mën a yemale ak yeneen ak yeneen yoo xam ne man ak yéen ñoo ko bokk di ko dund ci dëkk bi yal nañu yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko allahuma ya haadi ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim min annabiyina wa siddiqina wa suhada wa salihin غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقبل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأقم الصلاة